bu wóor ko ne ba léegi nag bàyyi jàpp gàtt bu dee.
fënd bay bàyyi ko ci gàtteem.
fënd bay bàyyi ko ci gàtt yam.
di dugg ci ay gëtëm.
di dugg ci ay bëtëm.
ku ko jàppee lu dul tus nga la.
jàpp lu tus nga.
réer nga tuuti ci ci liggéey réer ko. tus nga rek la.
boobu day du tere liggéey. tere na bés ca jaktaw.
mais moom ñu ngi waxtaan ñu teel a moom la yem ci nekk.
nga xaar gaal na foofa ba léegi.
mais ba léegi fa jaxaat bi sama ba léegi.
wax naa ko man soo may wax nii.
na ko man sama bër ci dem.
Daqaar googale.
mais daxaar booba waxtu yu jot.
waxtu bi jot.
booba jaktaw melagul nii ci ndox.
mais ba jaxaat bi bu ñu ci ndox.
booba de am na loo wu ñuy wax mbari.
booba am na benn loor bu góor bu tudd mbaari.
ak yeneen i gëléem.
ak yeneen yu gën booba ay buukaay am.
booba ay buukaay am ñu dem bokk ndiir.
ñu dem pour ñu wax bokk ndiir ci seen kiwetu faat.
su paas la ak euh, kë- kër euh, mëllaxe.
ak mbëllëg wala dëkk bu gàtt.
wala dëkk bu gàtt ba ndox ma ñëwee.
ñee ba ndax ma ñëwee gaa ñu ne ko këy.
gaa ñu ne ko këy te waxtu yu jot te na.
waxtu yu jot mu ne ñot kët jóg taxaw.
góor gi ne ñot képp góor taxaw daal di fëgg na dugg rëj.
ne daal di yëkkati ndodd bu rëy
loolu xam nañ ko ci moom.
rek loolu la mën ko ci moom ku teetoon riba la daana ko tere.
ne teetoon na lool riba dax na ko tere ku teetoon lekk ñaq nit ñi la daana ko tere.
ku teetoon lekk yëq yi ñu la dax na ko tere gis nañu ne gis nañu ci place bi mu tëdd.
ci place bi mu tëdd góor gu màggat góor gu màggat ñëw taxaw ci bunt bi nuyoo.
ñëw taxaw ci bunt bi nuyoo ñu ne ko day am na mag muy nuyoo ci bunt bi.
ñu ne ko góor gi am na mag mu ñëw ci buntu mu ne ko bismillah góor gi ne ko bismillah mu dugg fi mu dugg toog toog jàmmasanteeg moom mën a jàmm sa teeg moom dana ne ko dal ba góor gi ne ko dal ba mu ne ko dëkk sangam mu ne ko maa nga dëkk dëkk sànq mu ne ko turwa mu ne ko tuur mu ne ko nangam mu ne ko nangam la mu ne ko lu doon sa yoon mu ne ko lu doon saw yoon mu ne ko seet li la ngir jëm yàlla mu ne ko dama la seet ne ñu jëm yàlla waaye nag bi may ñëwit waaye bi man ci am na lu ma fagaru am na lu ma ko loo xam ne loo xam ne lu ma gal lu ma lu galfandoo ma gàlfandoo woon indi naa ko indi naat mu lew ma dom mu lew ma doom ndax aw say lew ma taxan ndax dama ñëw ba ci àll bi taxaw say nag dem ci marché bi dem ci marché bi jaay ko jaay ko bëgguma la nuyu loxoy neen bëgg ma laa nuyu loxoy neen mi ngi mi nii ngi nii maa la ko jox maa la ko jox li wajillahi li wa ci lew na dom lew na dom góor gi ne góor gi ni fekk mi ngi woor fekk góor gi dafa woo nañ ko jox soxna ak mu yëpp ne ko nañ ko jox soxna ak séet te amul lu mu dogoo amul lu mu dogoo mu mu defar ko ci Dakar defal ko ci daqaar wala luñ ko ci mën defal wala su ma la defal ndax Malick lekkati lu lew jàng ak di jàng loo day topp ak di topp loo day moytu ak di moytu loo nga nekke woo ma doono nag dañu roy loo ci kii moo di ki doy moom dañuy digal te dina joy te it wutul waa di ko fay moo doon imaam na sedd yàq góor gi day jàng ak di jàng loo day topp ak di topp loo kii day moytu ak di moytu loo nga nekke woon ma soonu nag rëy leen ci kii moo di ki doy dañuy digal moom du nu jey te it wutul waaju ko fay moo doon imaam na saddiya Cheikh Seydi El Hadji Malick dañuy digal na gëm bu wér jullil sawoor génne lawar na xaj kaman di leen si kar sax leen ci lii du leen torox da lay digal du la dugal da lay yëgal la lay dëgal dige la laab ëllëg mbugal te lay jógee la yàlla wax xaaja bàyyi si Malick nee na saboo sa bopp teg ca kaw di waate naa mën a ret bii di da nga wàcc lool boole ku ñëw nga teral te suum nga leen maslakal axyaari kenn ci desul te kum ci doon minumu mawlaawu lay taxawal عاملتهم بسياسات بها انتفعوا ووصلوا للعليم مصدر لجان مصل شيخ التجان شريف لبي فشيخنا وعد قرعي سنة سنة بدا قرع اقتر حاج مالك يا متريس كل ري Cheikhu Tijaan Sharif la roy te Cheikhuna waaju ko roy sunna si yoneen bi doo ko roy. mooy leen ci kii moo di ci roy damay di kal du nu mu jay sayidu tul waaju ko fay moo doon imaam na ko. Maalu dalay digal du la dugal dalay yëgal waaju digal la lëmb dal tale jafe.
dama bëgg ngeen xam ci Seydou Hadj Malick tuuti rek
léegi dafa bëgg rek ñun ñëpp ñu xam ci seen xaaj may tuuti rek suma xam-xam suma xam-xam sax day du noonu ne xamam xam-xam xëy na la kenn dañu si noonu waaye lu ma leen ci nettali ci ñu wóor la ko maanaam lu mu lay ci nettali lu mu tëj bëccëg la wala mu jël ko ci ñu wóor wax na leen affaire u mag moomu léegi ne wax na leen affaire mag moomu léegi
ku sàmm la woon ne góor gi ku sàmm la woon ndax nee na yàlla ne góor gi nee na yàlla
ala himmati fajal ilahi aliyatan li an sirtu xurran xaalisan kulla bisati yàlla yag ma jox itte ju xam ci kawe la.
ne góor gi nee na suñu borom yàlla yàlla mooy jox ci si kawe sa lu tax ma di la ko laaj lu tax la di la ko laaj ndax ma nekk gor su set wecc ndax ma nekk góor set rek sama diggante samay doom ci sama diggante ak samay doom samay soxna sama diggante ak samay soxna samay bokk sama diggante ak samay bopp ñi may yaakaar sama diggante ak ñi ma yaakaar topp ma ngir yàlla topp ma ngir yàlla sama bakkan sama bakkan sama bànneex sama bànneex ma nekk gor su wet sëj ci koo xam ne gi kenn du ma moom ku dul yàlla ma nekk góor su set rek ñun yëpp ba kenn doo moom ku dul yàlla ba du ma wéet ak taalibe sax waxanteeg moom loo xam ne wala ma teg ko loo xam ne dina ko def ñëpp pour yë- yëlif ma ëllëg mais bés yow la teg daanu wax moom nga xam ne dinaa ko def ñëpp ngir ëllëg déet dana dana ko def dana ko def njët jëndi ma dinaa ko def dana ko def njëkk jënde ma yàlla bu ma seetaan bëgguma góor loolu gi yàlla moo seetaan loolu bëgguma ko fii mu tëdd ne góor gi nee suñu dëkk am na benn waay boo bay koo ca xabbaan am na benn waay bu ko bàyyi koo xabaar
ñëw nuyoo ñu yëgal ko ko mu ne na dugg ci muy waxambaane ne kooku yoo xam ne moom dëkk bu ñëwoon ñu ne ci góor gi ñu ne dugg
mu laaj ko lu doon sa yoon ne ba mu ñëw moom góor gi laaj ko boole ñu doon sa yoon mu ne ko man day dama ñëwoon pour jébbal la sama bopp muy góor man dama gis ko ci ceew ngir jébbal la sama bopp mu ne ko waaw ana say wajur mu ne ko waaw ana say wajur mu ne ko ma ngi ca xabbaan ñu ne ko man day sama yoon ñu ne ko ca xabaar
foo foo nekkoon nag mu ne ko waaw foo noonu yow mu ne ko man day dama demoon dénkaane sama bopp fenn mu ne ko man nag demoon naa ci kanam sama bopp feneen mu ne ko ndax ci sa ndigali waajur la mu ne ko la nga defoon ci digal wajur ba dafa woon mu ne ko déedéet mbaa dina ko déedéet ci sama teeyu bakkat sama bakkat rek laa ko sama defoon bakkan rek laa ko defoon waxtaan wa àgg ci mu jindi ñetti téeméer ne ko lii maa ko bayoon maa ko teg nee na waaye waxtaan ak moom di jox ko boppam jënd ñëpp téeméer bi jiira maa ko borom ñëw na maa la ko aji pour dénk la sama bopp pour jénk la sa bopp yaakaar la ëllëg mu woo doomam Alioune Fall Abdou Boli yàlla na ko yàlla gërëm mais góor gi daal di woolu ku ñuy wax Aliou Fall doomam Abdou Boy yàlla ko yàlla yërëm góor gi woolu magam bi mu bokkal ndey ak baay te ñu denc ko fi muy baay bi Abdou Boli mu jëlaat jéem bokkal rek sëñ dañ ko fii moo jur Aliou Fall Abdou Boy Aliou ma ko nettali mais Aliou Fall moomu moo la- ko def la ji Abdou ci lari boppam Ci sama nopp.
ci noppam góor ga woo ko mu ñëw mais góor gi woo ko mujj mu ne ko gan googu ànd rek moom ci sa kër lu ci war nga def mu ne ko gan gi yóbbu ko ci kër lépp lu ci war na nga def koppar yi koppar yi yóbbu ko ca jokkeel yóbbu ko ci góor ñu wax jokkoo wala magam googu Ablaye caw Thiaw góor Ablaye Caw mu denc ko mu denc ci ko ne te lu mu ci jublu nga kenn ci góor gi jublu waa ji góor gi laaj na ko turu baayam ak yëpp góor gi laaj na waa ji yow fekk turu bàyyi wax ko ak fu mu dëkk yëpp ak dëkk ba ak dëkk bi Seydil Hadji Malick bind bàyyi bàyyi Moodu Ngiraan Malick Ngiraan ne sëñ xaar naa bind góor gi mbay mu jira wala beneen mag bu dëkk ci biir xabbaan te bokk ci muqaddam wala beneen mag bu dëkk biir xabaat te bokk mu xaddam
mu ne leen na ngeen ma toppatoo diw wax ko ne ko su fi mënee ak si na fi ñëw ne góor gi ni ko na ngeen ma bokk tool ci dugub ci dugub diw ci xabaat doo moom ne leen soxla naa su ma ne ak si def ak
ñu wax ko ko nee na sos soo góor di ko wax ko.
mu ne ma Seydou Hadj Mbaye lu mu may doyee.
mu ne man man du de ma waaye taalubee.
Sidi Hadj Malick ndax xamul lu may doyee ndax man su ma taalubee tey nag wax dëgg yàlla xamul fu ma xam.
ay bokkam ne ko da ngay wujj rek.
ah ay bokkam ko ah da ngay wujj rek nag kat ba xam lan la.
ba xam lu mu lay doyee du sa sëriñ.
toujours sëñ waaye woon na la.
waaye woo na.
soo demee daa xam ni mu lay waaye da doyee.
ngay xalaat nga xam lu mu lay doyee.
mu door a nangu.
mais góor ga door a nangu
takk fasam.
fekk fasal
ñëw ba kees mu ñëw ba kee dugg saxaar.
dugg saxaar fekk fii góor gi.
fekk fii góor gi place ñu yëgal ko ne ko am na gan gu fi ne.
yéen ko góor gi am na dara ci nekk mu ñëw lu yoon seeg moom.
mu ñëw di leen seet moom mu laaj ko turam.
góor gi laaj ko turam mu wax ko ko.
mu wax ko muy wajuru waaju.
mooy fekk mooy bàyyi waaj ci ñëw mu ne ko maa la soxla woon de.
góor gi di ko ne man de naa la soxla woon waaye soxla bi day jàmm rek la.
waaye nag soxla la soxlaa kat jàmm rek la dafa am ngóor su fi ñëw tudd na yaa ko jur.
dafa am góor gi di tudd ni yaa ko jur ne gëñ na la gis te fa mu nekkoon du ci sa ndigal.
ni gën nga laa def te fa mu nekkoon ci sa digg mu ñëw nag ci man ne def may dénk boppam.
ne mu dikk ci man nag li damay jël boppam ma ne ko ku ma woo sama doom.
ma wax sama doom boole foog moom.
boole koog moom nga mu ñëndiku tuuti.
nga mu ñëw tuuti ñu wooyu leen ñu ñu ñëw.
woy leen ñoom ñaar ñu dugg
mu ñëw ñu ñu woy leen ñu dugg mu ne Alioune demal jëli dénkaane ba.
mu ne Aliou dama jëli ndénkaane ba xaalis mu dem mu andi ko.
mu jëli ko indi ko waa ji toog.
waa ji toog baayam toog.
baayam toog Alioune Fall Aliou toog.
Fall toog radiyallahu taala anhu.
radiyallahu taala anhum baayam Seydou Hadj Maye bàyyi toog.
seen xaay maay toog mu ne ko ne dénkaane ba.
mu ne ko rek dénkaane ba mu ne ko mi ngi nii.
mu ne ko mujj nii mu ne ko teg ko ci loxol ngóor.
mu ne ko teg ko ci loxol ngóor si mu teg ko ci loxol mu baayam.
teg ko ci loxol baay ne ko.
ne ko sa bàyyi ngi nii.
sa bàyyi ngi nee na da nga dem ci lu dul leen ndigal.
da ngaa dem ci lu ndigalam xaw ma ku la mën a defar.
xamu ko la mën a defar Waaye maa ngi- waaye maay day moo mënu jógal ànd ak sa bàyyi.
ànd ak sa baay ak sa xaalis jaamu ko. jaamu ko ba xolam seet.
ba xolam seet.
li nga bëgg.
te la nga bëgg nga am ko.
nga am ko.
waaye man ma la ko.
waaye man mënu ma la ko jox
góor gi cer na delli.
ne góor gi cer na benn wax na ma ne.
ne wax na ko ni cëri vingt neuf.
sëriñ vingt neuf ci kër Pape Massamba Ndiaye sama góor koro na rek.
sama njaay tooy.
cooy yal na yàlla dolli seen yërmande.
doon seen yërmande moo ma wax ne ma.
nee mu wax ko ni man dama bëggoon defi mu jaawara.
man damaa bëgg dafa damaa bëggoon a def mu jaawari ci Madina ak sallallahu alayhi ak wa sallam.
sallallahu alayhi wa sallam ma bind Seydil Hadj Malick.
ma bind Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu.
radiyallahu taala anhu mu tontu ma.
mu tontu ma ci loolu ma koy ci tàggu.
loolu ma koy tànn ne ma ndax sa ndey ak sa bàyyi ngi dund.
mu ne ko waaw ndax sa ndey ak sa baay ñu ngi dund mu góor ga tontu at ko.
góor ga tontuwaat ko ne ko déedéet.
ni ko déedéet dundatuñu góor gi tontu at ko moom itam.
Seydi Hadji Malick tontuwaat ko ne ko kon nag sa mbiram ci sa loxo.
kon nag sa mbir ak sa loxo loolu yi nga bëgg.
loolu nga bëgg man sax su ma ko mënoon man sax su ma ko waroon a def def. te du jaboot bi.
te du njaboot bi kon ma dem.
kon ma def te
kon nag yooyu sa bopp.
kon nag yaa yim sa bopp benn.
benn
sama baay Abdou Khadir Dia.
nee góor gi Abdou Khadir Dia bu aynu maati.
bu ay ni maaj moo ma nettali ci lamiñu boppam.
moo ko nettali ci lamiñu bopp ne dafa am bés rek.
ñu dafa am des rek mu jot ab leetar.
mu jot ab leetar bu jóge ca ndeyam.
bu jógee ca ndee mu ñëw ci Seydou Hadj Malick ne ko soxna te ni dafa bind.
mu ñëw ci Seydi Hadji Malick mooy mu mu toogee dafa bind nee naa ñëw.
ñu naa ñëw mu ne ko su fekkoon ne saxaar demul day ci ngay. su fekkoon ne du sori bi dama lay dal di digal nga doxal sa tànk su kese.
fekkoon ne sori bi fa mu dëkk sori damay dugg dal di tànk kon waaye su subaa.
waaye bu subaa te dem déglu ko.
soo dem déglu lu mu la digal.
lu mu la digal nga def ko.
nga def su la yebalee.
su la yebalee nga ñëw.
nga ñëw su dee keneen.
su dee feneen demal.
demal waaye su ne toogal.
waaye bu dee tooga toogal tooga bul xëccoo ma.
bul ko coowul dara ak yeneen ak yeneen ak yeneen.
yeneen ak yeneen ak yeneen ci yeneen góor
daana ko digal it ñi nga xam ne dañu doon wax ne moom la ñu yaakaar.
mais nii mu nekk li kat góor yëre góor yi daana ko digal it ñi nga xam ne mo- dañ ne woon moom la ñu yaakaar du ma wax ne taalibeem ndax masu wax sama taalibe.
mais dañu taalibe góor gi ba mos wax sama taalibe ay bokk laa ma.
ay bokk la amoon Cheikh na Tidiane Cheikh Ahmed radiyallahu Tidiane radiyallahu anhu ay àndandoo laa ay amoon.
àndandoo la amoon asxaab la amoon.
asxaab la amoon maamam sallallahu alayhi wa sallam.
maanaam sallallahu alayhi wa sallam asxaab la amoon.
asxaab la amoon ñooñu la roy.
ñooñu la góor gi roy
te daana wax ne.
te mais góor gi daana wax ni ñooñee daroon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam.
ñooñu dara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay jigéen la lañ jur góor rek lañu.
mais ay jigéen a leen juróom ay góor rek la ñu woon su neexee yàlla.
bu neexee yàlla mani. mani lu ma man lu ma mën danaa ko def.
dinaa ko def ndax yàlla.
ndax yàlla su ëllëgee.
su ëllëgee ci barke ci barke rasulullah.
Rasulullah ma siggi.
ma siggi fa ñu siggi.
fa ñu siggi waaw si ñoom mukk sëgg moo ko wax de.
mais góor gi ko wax
radiyallahu taala anhu.
radiallahu taala anhu
jaktaay looloo taxoon mu sakk.
mais jakka loola tax mu sàkk ko jàmm gën loolu taxul.
jàmm gën loola tax mu sàkk ko mas nañ ko wax itam ne ko léegi jàngal nga fóor yu bari ni ko mas ñu wax góor ñu ne ko léegi nag jàng nga fóor yu bëri toogal te nga wut ku jàngale léegi nag bàyyi njàngale mi toog te wut ku jàngale mu ne déedéet mu ne ah déedéet bu nag leen ma ko waxati de loolu de bu leen ma ko waxee doomu gor du ñàkk métier doomu góor du ñàkk métti li tax may jàngale doomu góor du ñàkk métti li tax may jàngale dama bëgg ñii may jàngal damaa bëgg ñi may jàngal ku ma ci xëyal tool ku ma ci xëyal tool wala nga saraxama sa sabaaru dugub wala nga soxla sabaar dugub soo lëgee soo lëggee ca kanamu ca yàlla kanamu yàlla nga taxaw nga taxaw ma taxaw ma taxaw maam lay yu ma wér am loolu yëpp layoo mooy la laa yow mooy la lu tax nga nangu woon sabaat bi waaw lu tax nga nangu sabaar dugub lu tax ci doon la demal da tool doon dema tool ma ne ko li nga ma xamaloon ma ne yàlla li nga ma xamaloon muy lenn ci li nga xam ne li li nga denc ko muy lenn ci li nga xam ne li nga dégg ko ëpp wa ma utitu min al ilmi illa qalilan wala yuxituuna bi shay'in min ilmihi illa bima shaa ma ne ko ci laa doon tomb te di leen xamal ma ne ko man nag xam-xam booba nga ma xamaloon ci laa doon topp di leen ko xamal ci la jënd lii ci laa jëlee lii ñu may joxoon ko ne mu ne leen doomu soxna du ñàkk lay mu ne say góor ñi doom sax du ñàkk lay looloo tax looloo tax kon nag bàyyi leen ma ci kon nag bàyyi leen na ci may dem ba fu ko yàlla ñamale may dem ba fu ko yàlla ñeme waaye man du ma wàcc sama bopp waaye man du ma wàcc sama bopp te mbooloo ma ca jàkka ji te mbooloo ma ci jàkk du ma wàcc sama du ma bopp wàcc sama bopp ci tëral leen bind dina yi leen bind ba fu ko ba yàlla fu ko ñamale yàlla ñeme
ci la nekk ba wujji borom mais yii mel ci la góor ñi nag ba ci borom dégg naa ci góor gi amoon mbay mais dégg na ci góor bi sama ndey rahmatullahi alayhi rahmatullahi alayhi te loolu foofu lu mu wax Seydou Hadj May te lu dégg mu la wax ci xaaj lay dëgg la
góor gi dafa am bés muy jàpp mais góor gi dafa am def muy jàpp góor gi amoon mbay di ko sottil góor gi am na ko sotti muy jàpp ndekete ab dërëm dafa suulu foofu la ndeke jàppukaay ba xam naa dërëm watoon na fa suul fa nguur
M- ndox ma di toq muy fakku ndox may toog dërëm su say fàkku ba feeñee si lëf ba ëllëg feeñ ca dërëm muy fakku muy fàkk lu ndox mi di sottiku ndox mi fàttiku ba mu di dërëm bu ba feeñ mu di dërëm bu feeñ góor gi amoon mbay ne ma yëkkati moom ma ko wax de.
bay ne mu yëkkati Moom a ko wax de.
moo ko ci lam yem bi teg ko ci loxoom fekk ko ci loxo góor gi ko góor gi lii day ab dërëm te la kii de ab dërëm la te keroog kat njël amul ci te kër gi.
keroog kat nañ jël amul ci kër gi góor gi ne ko indi ma seet góor gi ne ko indi ma seet mu teg ko ci loxo teg ko ci loxo mu tol ko ñetti yoon ne mu tam ko ñett yoon ne ko ne ko ne ko li nga yàq doo ko mën fii de li nga yàq doo ko mën a fii yàq nga ngor yàq nga ngor dox nga diggante nit ak i mbokkam dox nga diggante nit ki bokkam dox nga diggante nit ak i xaritam dox nga diggante nit ki xaritam ak i njabootam ak i njabootam dox nga diggante nit ak yàlla mi ko dox nga moom diggante nit dox nga diggante nit ak yàlla ni ko waaye moom ci tànk bi sew na de waaye ci tànk bi sol waaye doo ko yëkkati.
waaye doo ko yëkkati ne ko xërr xërr xërëtan boo tul góor ñu fonk sax moom
góor doon mbay ne mais kon an bay nee na dafa am kilifa gu gaañu ci njariñ ji dama am kilifa bu gaañ ci njëriñ ji dénkaane woon boppam ne ne ko Seydil Hadji Malick toppatoo yéen sàlloon boppam ne ko seen aar naa toppatoo mais ba ñu demee mais ba ñu demee ñu naan dañuy nekk diw ak dañuy nekk diw ñun dañuy nekk ci wax dañuy nekk ci mu ne kii kat daf ma dénkoon boppam mu ne ah ci dafa dëkkoon boppam te dafa bokk ci yi nga xam ne yonent bi ne nañ leen gaayu te dafa bokk ci ñu ñene ci bi ñu nañ leen taal kon nag du ma nekk kenn kon man dama nekk kenn man la dénkoon man boppam la dëkkoon boppam ñëw na ñëw na ñëw fekk ñu di bokk ñëw sa suñuy bokk nañ ma jàppale nañ ma jàppale ñu def li war ci moom li war ci moom jébbal ko borom def ko borom
mais ba mu ko dencee ba noppi nee ba mu ko dee ca ba noppi góor gu am mbay nee na góor gi ànd ak yéen mu ànd ak moom mu ànd ak moom romb ca penc ma romb ca tuuti ci ndeke ñu ngi ko rey nag wu rëy nee ñu fay ay nag bu rëkk ndax ci ci bàyyi ko ndax ñu bàyyi ko góor gi am mbay ne ko lii day yàq la góor gi am bàyyi ko fii rek nag ñu ne la yàqal mais góor gi fab lapp mbubam taf ci gémmiñam ci gémmiñ muuñ muuñ ne ko ama du nañ dem rek di ko mënu nan dem rek yàlla am na yàpp yàlla am na yàq Ku nekk.
dafa jafe ba ñu ñëwee ba ñu ñëwee mu dindi benn ngër dërëmu ngurdu mu dindi benn gërëmu ne ngor ko demal wuti yàpp ci lii li ko dee yàpp ci moo gën ci yow loolee nga moo romboon gën ci loolu yàpp waaye nga romb ko Seydi Aboubacar nee ci dem mu kër radiallahu taala anhu yàlla taala nee na Seydi Hadj Malick xam ko nit jaamuwul lu ko fay mais Seydil Hadji Malick am ko rek nit jaamuñu ko suñu kilifa gu baax ak kenn Seydi Nour mais suñu kilifa bu baax bi kenn Seydou Nour radiallahu taala anhu yàlla taala léeg-léeg mu toog ba mu yàgg léeg-léeg mu toog ba mu ñàkk ne est-ce que Hadj Malick est-ce que El Hadji Malick est-ce que El Hadj est-ce Malick que El Hadji Malick est-ce que est-ce que El Hadj Malick El Hadji Malick moo gore oui c'est que ni moo bar moo gore moo bar moo gore moo gore est-ce que El Hadj est-ce Malick que El Hadji Malick ne ne ñu toog rek laa yem nit foofu rek la yem ma xam ci moom daal ci def naa yem
kon nag mais kon nag li mu daan santaane na nañ ko def li mu daan santaane dinañ ko def suñu kéemtalaayal kattan nañ ci góorgóorlu te lu compte kattan la ci góor góor fonctionnaire bi na sax ca biroom te jubóo ci kilifam jubóog ñu ma ko bokkal fonctionnaire bi na sax ci bureau te jubóo ay kilifaam jubóoy ñu mu bokkal bureau suñu mag ji ci Thiès allah joma di njigéen yal na ko yàlla yàggal suñu kanam mais suñu mag yéene ci Cees El Hadj Mawone Ndiéguène yàlla ko yàlla yàggal suñu kanam moo ma wax ne ma mais moo ko wax ni ko Seydil Hadj Malick dafa jóge njaar ne wala am na fu mu jóge daal suñu xaaj nay daal dana mu jóge njaar loolu am na fu mu jóge ñëw Thiès ñëw Cees booba la fa ma sa ñëw booba la ko ba ci ñëw ñu wax sama baay Amadou Baro ñu wax góor Amadou Baro radiallahu anhu ma radiyallahu anhu ma ne ko ganañ ci tënk ni de ñu ko gane ci suñu dëkk nga sa Seydil Hadj Malick nga fekk suñu xaaj Malick mu jóg mu jóg fekk ko muy moom fekk ko muy moom mu ànd ak moom mu ànd ak moom dem ca kër ga dem ca kër gi mu ne ko man de lenn rek man di woon mu ne ko man kat lenn la moom indi woon moom rek ànd kat góor gi rek kaw benn topp kenn topp dama doon wut ci lu ma sànge njaboot ga am bëgg yu ma xot si dama doon wut ci moo tax nga woon bëgg lu ma ko yaakaar naa ne ku romb alaaji ma xaji ahmad njigéen toog ko laaj dana li ma la ko dana ko ko bokk naa ne lii ñu wax dana ko def ci ñun ko moo ma ko nettali moo ko def mais ba ñu noppee mais ba ñu noppee góor gi ne ko waaw nañu dem ca am na benn sëdëtam bu ñëw Ablaye Dieng dama fàtte ci roo waaye Ablaye Dieng dafa daan tudd mais am na ñu ko am ci sa saa ci Abdoulaye Dieng lu dem suñ demee li nga bëgg ci li ma dana ko am suñ demee li nga bëgg ci juróom yëpp dana fa am ñu dem ñu dem
li mu amoon li mu amoon mu di ko jënd mu di ko jënd di ko jënd di ko jënd ba mu jeex ba mu jeex góor ga xot si leneen teg ko ca góor gi commencé taal xam ne loolu trop Seyd Hadj May xol bi daal di jaxasoo mais nag góor gi xol bi dañ jaxase ñu àndandoo ñu àndandoo ba ñëw ci kër gi ba ñëw ci kër ga mu ne ko suma njëgu tey gi day neex na mu ne ko sama njëgu sëy bii day neex waaye am na ci loo xam ne du day dana ma tere nelaw waaye am na loo xam ne mu dana ma tere nelaw ndax man li ma amoon xot si naa ko ba mu jeex sama li ma amoon fas naa ko mu jeex te gis naa mu dellu si leen naa mu doon ci leneen te xaw ma dellu yi xaw a doon lan la lan la ak na mu demee ak na mu demee.
loolu daal jaaxal na ma kooku daal jaaxal na
mu ne ko nañ dellu te mu ne ko dama jëlee ñu dellu ba ca kër ga ñu dellu ba ci kër kër kan mu ne ko sama gan bii day dafa wax lii mu ne ko ah sama gan kat lii la wax mu ne ko bi nga ñëwee ne sa gan mu ne ko bi nga ñëwee sa gan xaw ma ko sax man xaw ma ko sax man waaye lii ma ko jox waaye li ma ko jox maa ko fay maa ko fay ci sama poche ci sama poche góor gi doon ko lu Seydou xaj may ne ko kon nag lew na nee na ne loolu ñuy wax ay sa mais loolu ñuy def ay te mag ñi daan ko te maa tegoo ngi daan ko tegoo mu yëkkati benn jox ko mais commerçant bi yëpp ci benn fa góor gi ne mu ànd ak amoon na góor gi amoon ne mu ànd ak moom defe na moom a def góor gi ma nekk Fatou mu ànd ak moom su dul moom di góor gi amoon bay waaye defe na góor gi amoon mais góor gi ma nekk Fatou la mu ne ko na nga dem ci waa mu ne jooju ko nag góor gi ne ko na nga dem ci waajoo ji ndax man li ma jox jënduma ko ndax man ten lii ma jox jënduma ko te bi ma ko joxe itam gisuma kenn ku mu génne dara fay ko tey bi ma ko jox ci kenn fu kenn fu mu génnee dara fay kon nag dellul jox ko ko ba mu tegu wér wala nga ma jënd boo ko man demee delloo jox ko li ma joxoon ba mu tëj tëj biir ma bu def ma jur wala nga delloo mu làmb poosam mais waajal am poosam ne ko maa ko moom ni ko maa ko moom lii ma ko jox li ma ko jox lii laa ko doon li fay laa ko doon fay kon nag ñun ñëpp mais te nag ñun ñëpp li nga xam ne moom la ñu bàyyi woon li nga xam ne moom la fi bàyyi woon ci wattandiku riba ci wattu ko riba nañ ko wattu bu nañ baax ko wattu bu baax te kenn ku ci ne luy sa métier te kenn koy lii tamit nga fonk ko nga fonk ko dagam commerçant nga dagam commerçant bul yàq alal ji nga jox bul yàq alal bi nga jox pour sa bànneexu bopp pour sa bànneexu bopp waxuma la keneen kooku la bànneex keneen dagam kees la dagam kees gouvernement bi dénk la gouvernement bi ko dénk la wala société bi wala société bi wala association wala bi association bi wala mbooloo mu daju wala mbooloo mu day topp sa bakkan sab sa bakkan jarul nga yàq ko waxatuma la keneen waxuma laa nag nga yàq ko waxuma laa bakkan keneen daana wax itam ne mais góor gi daan wax ne soo àndee sa moroomum baykat soo àndee sa moroomam bay ruuj jot ruuj jox mu ne la man du ma bay ren mu ne man de waaye ren de duma bay ndagam da nga ko lëngoon góor gi ne dem da ko lëmboo Doo teg sa loxo.
teg sa loxo dem ruuj yow dem ruuj yow te bàyyi ko te ba mu bàyyi def.
ko bopp yëpp yi mat nañ seet bu baax a baax yéen kat ma koy seet sa bu baax di ko lëñ ndët di ko lëñ bët ndax ëllëg ndax ëllëg mu bañ la indil benn ci niñ kanam mu in bañ la indi benn ci ñuy kat yàlla muy leeral yal na leeral suñu lépp yàlla day leer yàlla yàlla leer na lu ñuy weesu lu ci lëndëmoon yal na ko yàlla leeral ba mu leer nañ li ñuy wees li ci la gëm wax yàlla yàlla leer nañ li ñu jublu yàlla na yàgg lool te sax te bañ dara bañ ci lëndëm li ñu jublu nag yàlla yàgg te sax te dara nag bañ ci lënd lu dammoon yàlla na ko jàng léegi loolu gëmmoon yàlla ko jàngee te bu dara dammat te bu dara damay lu tilimoon lu tilimoon yàlla na ko setal yàlla ko te setal bu dara te tilimee bu dara tilimit lu lëndëmoon lu la demoon yàlla na leer yàlla leer te bu dara te bu lëndëmoon dara lëndëmat
ñuy xàqam yëpp mu baal ñu yii xasal yëpp bu baax ak yi ci suñu los bi ak yi keneen ak suñu la ak keneen bala ñu fee départ yi di dem bala na fee départ yi dem départ bi du ñàkk départ bi du ñàkk waaye su neexee yàlla it mu yàggal ko lool yéexal lool mu yéex yàlla na yéex yàlla na yéex lool te bala ñoo dem te bala noo dem lang-lang yëpp lang-lang yëpp ak taq-taq yëpp ak sax sax moom mi nga xam ne lu mu fóot bu set moom mi nga xam mi nga xam ne mu fóotu set te du fete du fóoti saabu set bu set moom fóotu saabu du fóoti omo du fóotu omo du fóoteem ndax du fóotu yàlla na ñu fóot yàlla na fóotu ba mu set rek fa mu fóote ñëpp ba mu fóote yëpp sunu mbokk yi
يستجير بكم يا رحمة أرسلت للخلق كلهم للخلق ارحم بعبد ضاق مذهبه إلا إليك سريعا فارج الهمم ما أما بابك عبد يستغيث بكم إلا ونال الذي يبغي بلا وامي عاشاكم الدار أن يرفع نزيلكم يحتاج للغير جود يا ما جبين ولن يضيق رسول الله ينتهي إلا الكريم تعالى به منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأماني لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان بالقسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخالف وقل بعبدك في الدارين إن له صبرا ما تدعو الأوان ينادي ولم لتحدث صلاة منك دائمة وعلى النبي منهل ومنتهي وصلي صحبي صلاة